asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ñaan sunu borom di ñu defal jàmm fi ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne alqulubu tayibatu mazlumatun daiman li annaha asrau man yaftaxu l abwaaba wa awalu man yatalaqa dorbaati wa sodamaati xakim bi nee na boroom xol yu baax yi wala xol yu baax yi ci seen bopp faaw rek dañ leen di tooñ toujours rek ñoom dañ leen di tooñ dañuy doon ay victime daal tooñ gu jóg ci seen kaw lay daal ndax ñi ko yor ñoom bu nit fëggee ñooy njëkk ubbi bunt pare pour dimbali waaye itam bu ko bon dugg si ñooy njëkk dajeek ay dóor dajeek ku leen di tasa yaakaar nit ñoo xam ne seeni xol dafa baax dafa féex foo leen fekk dañuy am yërmande dañuy yaatu dañuy nangoo xajoo nit Eh, ni la joxe misaal seenu dund bu doon néeg buñ tëj bunt ba la ku fëgg rek ñu ubbil la ñoom amuñu problème boobu lu ñuy jublu ci ubbil la it mooy bu dee dafa am yitt ju la yëkkati ñu jàpp ca lañu man ñaare boroom xol bu rafet soo yërëmtalu ci kanamam rek mu di la yërëmte lépp lu man dana ko ci def léeg nag dangay dajeek ci nit ñi ñoo xam ne seen yërëmtalu boobee dëgg la am ñooy dajeel ñoo xam ne loolu du dëgg loolu nag mooy waral ñoom ñu di leen tooñ ndax buñ tasee kiñ jàppoon ne li wax dëgg la te ndeke du dëgg da cee jaare dóor leen martu moo tax mu ne comme ñu njëkk a ubbi bunt bi kii dugg si ñoom lay njëkk a dajeel su dee kuy dóore ñoom lay njëkk dóor su fekkee kuy blessé la it ñoom lay njëkk a blessé loolu lañu xekk moom doon jàngal loolu nag du tax kenn kon de man dootuma nangoo bokk ci borom xol yu rafet yi ah danga ci bokk nag waaye boole ci ñaw njort te bañ a ñaaw njort ndax jamono ji ne nag buñ la loo ne jamono ji yàqu na léegi kenn mënatu cee baax juum nañu ba léegi am na ñoo xam ne boo dajeek ak ñoom xam ne baax dong lañ soxla ndimmal dong lañ bëgg la ngay jaaw di ko dajee koo xam ne nag la amut na na loolu ay benn benn lay da ngay ñëw njortu nag te foogu ba yàlla dimbali la ba nga xam ne la ngay dajee ñoom du bari waaye bàyyi mbaax gi moom ëpp naa def dara jarul baax ba yàgg yàqut ak jamono di la yóbbaale ba nga bëgg di ko bàyyi loolu la ñu xikma loon tey bi ñu fàtte mukk nag di wax ne sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbi ñi ngi sant ñëpp di gërëm di wa jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah